acca moo noonu pour la troisième combat de la soirée acca moo ngi noonu bu Rebeuss ak Eumeu Sène Junior nees moo def tent bi ama seen moo am sikkin bi wala du noonu loolu la mu nekk troisième journée de la eh troisième combat la soirée ama seen moom moo am sikkim nees du ñor wala nees bu tent bopp bi ñaari mbëree ngay leewtoo da xaar pour suqante waaw waaw ah Ness dégg nga ma <laughs> kon dolli li Eumeu Sène bu dollee yow nga dolli ñaari mbër ngay lewtoo tey ni tolloog dimanche eh donc waaw waaw sukkal sukkal mbëri dañuy xeex maa la ko wax mbëri dañuy xeex bëri si xeex lañ jëm nañuy sukkante waaw maa lay wax lii nañuy sukkante bu leen jàppante déedéet sukkante leen ba pare rokkas xaj na fa wala wala nga bëgg denc plaque ko eh, ñaabu ndaw ngay bàq <laughs> bi sax xama xel daaw fu muy dem xalil xoolal ma supporter yi xalil am ma seen junior kaay